ممشق عمرنا الحمد لله في سر وإعلان بفضل قد ناوير ورد تجاني الحمد لله في سر وإعلان بفضل قد أنلنا ورد ممسك عمرنا الحمد لله في سر وإعلان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 3 janvier 2020 ñu koy wàccaal di ko di ko di ko waajalee li nga xam ne mooy wan leen fi nga xam ne mooy xadara Jalle Niassène la ana lan ana lan la ñuy wax xadara Jalle Niassène ak li nga xam ne mooy barab bi nga xam ne mooy école bi nga xam ne suñu maam alaaji tabax tabax tabax tabax na ko fii ci li nga xam ne mooy ci Jalle ngir doomi jullit ñëpp mën cee jëriñu mën cee jàng moo nekk nii école baa ngi nii mu ngi ko tuddee ki nga xam ne mooy baayam di Cheikh Omar doonoon koo xam ne kàngal la woon borom xam-xam la woon doonoon doom ci alxaaji Abdoulahi Niass mébétoon nag ci dundam tabax école bu mel nii waaye nag yàlla mayu ko ko ngir li nga xam ne mooy mooy li nga xamoon xam ne amoon na ko doyut woon ndax boo xoolee moom maam Cheikh Omar Niass ci bay la daan dund bay jàngale boo xoolee ci waaye bi nga xamee ne nag bo boobu ñëw na di alaaji Abdoulahi Cheikh Omar Niass ko yaree jàngal ko yar ko sol ko xam-xam sol ko yitte bu mag sëkk moom El Hadj Abdoulaye Cheikh Omar Niass moom amoon yitte ne jëmbatal li nga xam ne sama baay bëggoon na ko mooy école danaa ko ko tabaxal sampal ko ko fii tuddee ko ko muy madrasatu al islamiya al arabiya faransiya Cheikh Omar Niass bi dalañ kaw la moo nekk noonu ci kaw kon ñu si li nga xam ne mooy arab lépp lu aju si arab ci ci ci ci arab di ko jàngale matière yëpp dañ koy jàngale fi waaye tamit lu lu aju ci wàllu français bi yëpp moo leen matière bi nga xam ne dañ koy jàng ci école français yi tamit boo ñëwee fii dañ koy jàngale nga gis ne devise baa ngi noonu mu tabax mu taxawal ci kaw nga xam ne mooy devise maam Cheikh Omar Niass nga xam ne maam Cheikh Omar Niass dundam gi yëpp ci loolu lañ ko xam ne mooy bi kaa wa ilmin wala amal fa tawi dinaa yaa xadima bil azab maam Cheikh Omar ne di ñaan yàlla ne ko yow yàlla yàlla nga ñu may mbaxanam jàng xam-xam ak jëfee li nga xam ne moom lañ jàng ak liggéey ci li nga xam ne mooy suñu ñàkk li nga xam ne ñoo koy ñàkkal suñu bopp ñu mën cee liggéey di ñaan yàlla ne ko yàlla nga ñu dëkkale ci loolu nga xam ne yow yàlla yow mi nga xam ne yaay aji sax ji yaay aji jiitu ji yaay aji laata dara di am yow yàlla yaa fi nekkoon moo tax mu ñaan ko mooy devise bi nga xam ne mooy devise yu école bi devise maam si xooman ñes moo tax ñu ko noonu ci ah, ci buntu école bi pour wane la rek ne maam Cheikh Omar si jàng ak jàngale ak jigéen la nekkoon moom moo nekk noonu école bi nag comme ni ñu ko waxee ñu ngi ko samp depuis 1973 mu doonoon benn mbaar boo xam ne moo nekkoon fii ñu ñu dajee waan si ay xale ñu si jàng temps boobu sax sëriñ bi ni ne nettali ne ay ay 300 ah, francs lañ doon fay nga gis ne développé na tey ba nga xam ne am na ay classe yu bëri jàpp onze ba quinze classe ngi fi di di di di école nga xam ne lépp luy xam-xam ci wàllu français comme ni ñu ko waxee ak ci wàllu arabe yëpp ah, dañ koy jàngale fi moo nekk noonu classe yaa noonu ba ci kaw sax am na am na ay classe ñu fay fi ñu fi di fi di fi di fi yaare nga xam ne mooy mooy bëgg-bëgg li nga xam ne mooy ko ngir taxawalal baayam li nga xam ne moom la doon ba muy dund te entouré woon ba ba mën koo tabax noonu te dañoo wax ne. xam almadaarisu xablal masajid nañ tabax jànguwaay yi njëkk ñuy tabax jaamookaay yàlla ndax yàlla dafa wax ne ah, taarifuuni xabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni na ngeen ma xam njëkk ngeen may jaamu ana naka ngeen may jaamoo sax te du ngeen ma xam moo tax Alaaji Abdoulaye Niass amoon esprit boobu amoon amoon amoon xalaat boobu ne école laay njëkk a tabax su ko defee doomi jullit ak suñuy doom jàng ci ba xam lan mooy xam mooy seen farata xam lan mooy sunna xam lan mooy kifaaya ah. xam li nga xam ne moo leen war cër gi ne su ko defee gannaaw bañ ko xamee yëm nag mu ñëw sampal yi li nga xam ne mooy gannaaw nag bam bam bam bañ waxee ne na ngeen jàng njëkk ngeen jaamu yàlla moo tax mu tabax école bi gannaaw nag teg ci jumaa ji nga xam ne ni ngeen gis mu mel ko nii melu ko woon bu njëkk ba ndax bu njëkk ba ak jumaa jàkk la woon bu ndaw boo xam ne benn sóoroon la amoon daanaka yaatuwaay bi yëpp amu ci woon ci biir daanaka yemutoon ni su ko defee nag jamono ji di avancé jamono lim laaj da ko koy jox su ko defee moo tax doom yi nga xam ne ñoo fi des tey ci njiital xalifa alhaji Pape Cheikh ak mbooleem rakam ñoo ñoo ñoo ñoo melal jumaa ji nii daal di ko defaraat daal di yëkkatiwaat sóoróol yi daal di ko gën a yëkkatiwaat ci kaw daal di yokkaat beneen sóoróol ba nga xam ne mooy moo ko ñaareel nele su ko defee daal di ko karo daal di ko def nii ba mu mel ni mu doom yi ñoo ko def doom yi nga xam ne alxaaji abdoulahi cheikh omar ñas yar na leen defar na leen jàngal na leen gannaaw bañ jaaree ci école bi ñoom ñoom ñoom doom yooyu gannaaw bañ jaaree ci école bi nga xam ne mooy madrasa cheikh omar ñas bi ñoom ñoo wëlbatikuwaat defaraat jumaa ji nga xam ne moom ngeen a gis ni mu daal di méngoog jamono daal di rafet daal di nga xam ne kenn du kenn du leen ko yóbbul li jumaa yi am yëpp ñoom am nañ ko su ko defee moom la moom moom ngeen gis noonu moom mooy jumaa ji nga xam ne fa la ñuy jaamoo yàlla léegi di fi wasifa di fi xadara di fi def ay ay ay dërs yoo xam ne yu am solo yooyu yëpp mu ngi fiy am ci ki nga xam ne moo ñu ko defar alxaj Abdoulaye Cheikh Omar Niass ñu ngi ñaan yàlla yàlla fayal ñu ko yàlla taaf ñu si barkeem fayal ñu ki nga xam ne mooy suñu maam Cheikh Omar Niass fayal ñu ki nga xam ne mooy si suñu maam Alaaji Abdoulahi Niass mu mag ndax loolee yëpp li ñu am tey lépp ci ñoom ci ñoom ñooñee la jóge kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu أمشق عمرنا الحمد لله في سر وإعلان بفضل قد أنلنا وردو تجاني